الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmi diin ñu tudde minhaajul aabidiin ilal janna te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeent waxtu jote fii ci Sénégal ñu jéggulu leen beneen yoon ci yéex a tàmbali gi tuuti ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Musaa alayhi salaatu wasalaam ndokkeel leen ci saxru rajab al mubarak ci ndokkeel al alam al islamiya ndax weer la woo xam ne ci la islam al mihraj amee woon sayidil awalina wal axirin muhammad ibnu abdullah alayhi salaatu wasalaam ci la gise woon ak boromam rabbi si tuwa jàlla kon ñu ngi ciy ndokkeel al alam al islamiya la siyama Sénégal mel ni nag dimanche weesu ñi ngi doon wax ci xaqu sawji ala sawjatihi droit yi nga xam ni soxna su nekk amel na ko borom këram ñu waxoon leen di leen incha allah danañ waxtaane xaqu sawjati ala sawjiha haqqu sawjati ala sawjiha droit yi nga xamni borom kër moko amel soxnam droit yi nga xamni borom kër moko amel ay soxnam insha allah rabbi kon sun mawdu tay muy sunu temu tay moy droit yi nga xamni borom kër bu nek amel nako ay soxnam xam ngeen ni sun borom rabbi situ jalla ni mako waxe won ci waxtani wessu bi mu bindee sunu maam Adama alayhi salaam te Adama yëg wéetaange ak xol mu bind na Hawa ngir mu wettali ko ñu nekk kuupal kon mboolem kuupal boo gis rek mi ngi représenté kuubal kuupalu yontu yàlla Adama alayhi salaam ak na xawa mboolem kuupal boo gis rek. couple bobé la représenter soo defee kon lolou lañ bëgg waxtane bu ko yàlla dogalé bismillah wal xasri innal insana la fi xosri illa allatheena amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bi sabri قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحسيس ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون سورة الروم ربي ستر جعله خلقنا مولانا سنو برام نينا بكنا في سماي كاوتيف من يالا بكنا في سماي كيمتان من يالا مالي بند من نفس واحد مالي بند بن بكن muni ni bokk na ci samay kawti bakkan boobee ma wat ca lu ñuy tuddé soxna benn bakkan la bind muy adam alayhi salam ma génne ca benen bakkan muy sayyidatuna hawa di soxnaam mu ni loolu man yàlla maa ko def mu bokk ci samay kawti bokk ci samay kiimaan muni boo gisee ma bind góor dal di xotti faar ga génne ci jigéen nek père nek couple pour mom moy li taskuno ilayha dama bëgg waxtu wo xamanteni goor genn na di dañ dañi di dañ dañi dem so mu delu ci ci kër gi fekk fi jigen jo xamni mo koy dalal jigen jo xamni mo koy noppal jigen jo xamni mo koy may sakina li taskuno ilayha loolu man yàlla maa ko def maa bind góor jigéen xam ngeen ni suñu borom rabbi dafa bind aadama baay mu bind sayyidina awa mu am baay amul ndey mu bind isa alayhi salaam moo tax bi mu bindee isa mu am ndey te amul baay yahud yi bëgg a tuumaal sayyidina mariama alayhi salaam ñu naan ana loolu nu mën a amee am ndey te amul suñu borom ni leen tufu xanaa yéen da ngeen dof xanaa fàttewu leen ni bind naa koo xam ne moom amul nday amul baay faf muy Adama alayhi salaam ma dellu bind ko amul nday muy Sayyidatuna Awa ma bind koo xam ne nii am na nday amul baay mu bëgg leen a jaaxal bëgg leen a yéem tufu suñ borom rabbi si jàll ci kiimtaanam yi da caa bokk yooyu da caa bokk yooyu mu ne inna masala Isa inda laahi ka masali Adama suma xaala lahu kun fa yakun mu ne mi ngeen di dute naan lu tax mu am ndey te amul baay mun ni ma ko bindee mooy comme ni ma bindee Adama alayhi salaam rek te mooy dama ko di nekkal rek mu nekk. mbar ni bi ma bindee góor bindal ko jigéen muy soxnaam bu góor génnee dañ dañi ba ngoon mu dellu si ci kër gi li taskunu ilayha ngir bu ñuy dal ko may ko ndox mu naan. tàngal ko ndox mu sangu ila axirihi léegi mu ni ci biir loolu nag wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma ma daal di doxale li ñuy tuddee yërmande ak mbëggeel seen diggante ñoom ñaar ñooñu ñoom ñaar ñooñu nga xam ne kenn ki mi ngi amee ci moroom ji sakina mu ni damaa def ci seen diggante mawadda def ci seen diggante rahma mu fasiroona yi nee nañu mawadda te mooy mbëggeel ñi ko gën a séentoo ci ku jigéen ki ku jigéen ki moo war a gën a bëgg moo war a gën a manifesté wu ak mbëggeelam rahma ñu séentu ko ci ku góor ki ku góor ki moo war a gën a yërëm moo war a gën a yiir moo war a gën a yaatal suñ borom ne inna fi saalika la ayatin li xawmi yattaqun loolu man yàlla maa ko def ngir borom xel yi man cee xalaat li xawmi xalaat kat ya ñoom buñ xalaatee ci lii danañ xam sabab bi tax yàlla boole góor ak jigéen léegi nag góor ak jigéen dañoo ànd di dañ dañi ñooy xëyandoo ñooy wàccandoo léegi kon li taskunu ilayha fu mu mën a amee moo tax kër yi xumb ba mel ni sabar gu tas looloo xumbal kër yi ba mel ni sabar gu tas ndax du tax ñooy xëyandoo di dañ dañi ñooy wàccandoo di dañ dañi léegi li taskunu ilayha fu mu mën a amee wa jaala baynakum léegi mawadda wa rahma fu muy am ginnaaw yéen a bokk dañ-dañ mawadda ak rahma ak rahma munu fa daje ndax ci waroon a am rahma ci borom mawadda li ko waroon a satisfaire ba mu am rahma ci borom mawadda ñëkku fa borom mawadda it li nga xam ne nii bu ko borom ma rahma borom rahma euh, satisfaire oon te mooy ki nga xam yërëm moom lañ ko gën a seetu muy ku góor ki boo gisee soxnaam mooy. sakina bi nga xamni mom la yàlla waxon ni motax ma bindal lako ngay am ci mom sakina amatu ci sakina ñak dam ci ñak sakina taxna amatu rahma borom ma wadda mom timit gisul rahma motax momit moom it amatul benn ma wadda moy kiko warana waroon a ko motax tax it dootu fa nek mbeugel dootu fa nek ila akhirih xeyna buñ duggé ci biir waxtani ndax li muqaddima rek la dana gëna leer borom rabbi su jàlla ni ya ayyuhan nas taqrabukum allasi ذكر كل حسب يما والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا المستمعين الكرام في ساعة خسيد أن لا نؤيكم تهية طيبة يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكرة رجع خسيد rajo xasid dellu si nañ yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min xaajul abidin ilal jànn ta seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ñu jégguli leen sànq waxtaan wi démarré te xam ngeen ni mbirum machine mel ne connexion bi moo amoon tuuti ay jafeñ-jafeñ kon ñu jéggulu leen ko ma tax ñu tàmbaliwaat waxtaan wi li ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaam ndokkeel leen ci saxu rajab al mubarak wi ñu dugg weeru barke weeru yërmande weer wi nga xam ni ci la sayyidil awalin wal axirin sant woon ak rabbi situ jàlla muy guddik al isra wal mihraj jalla jalaaluhu ñu leen ci ndokkeel di ci ndokkeel al alamul islamiya mani laa siyama nag général dimas bi le wessu ñu ngi doon waxtaan ci xaqu sawji ala sawjatihi droit yi nga xam ni moom la soxna amel borom këram droit yi nga xam moom la jabar amel jëkkër ñu waxoon ni buñ ci yàlla yóbboo daañu waxtaane waat gannaaw bi droit yi nga xam ni moom la borom kër ameel ay soxnaam droit yi nga xam ne moom la jëkkër ameel ay soxnaam ba neex nga ne xaqu sawjati ala sawjiha la neex nga ne xuququ sawjati ala sawjiha xaq yi nga xam ni wala droit yi nga xam ni jëkkër ameel ko soxnaam moom lañ bëgg a waxtaane donte waxtu lu bari dem na ñu jégglu leen ko rek incha allah liñ ci بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أسواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون سورة الروم وكي جلدي وكي mbokk ñu borom rabbi sto jalla dafa définir ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam définir ci sunna xoxox yi nga xamni mo war diggante ñaari way dencante sun borom ni bokk na ci samay kawtif bokk na ci samay kiman bi ni gima bind man yalla ñeel leen seen soxna ma jële ko ci seen jëm sayyidatuna hawa ñing ko ci sayyidina adam alayhi salam Adama alayhi salaam ak sayyidatuna Hawa ñooy kuupal bi jëkk ci kaw suuf ma jëpp kër wala jëpp jëkkër ak jëpp soxna wala jëpp jabar ñoom it dañu représenté Adama alayhi salaam ci kaw suuf ak sayyidatuna Hawa ci diggante jëkkër ak jabar ju ne ñoom la ñuy représenté borom daa bokk ci samay kawtéef ma sàkk ci seen jëmm bindal leen ci ay soxna ñun góor ñi. ci suñuy jëmm la yàlla sàkk bindal ñu ci suñuy soxna borom ni loolu nag boo ko gisee dëgg la kaawteef la waaye limu mu jublu mooy li taskunu ilayha dama bëgg bu yàlla dogalee góor dañ dañi ba dellu si waat fekk fi jigéen bi nga xam ne ci jëmmam laa ko génnee ci jëmmam laa ko sàkk ñaari parti lañ loxo nday joor gauche ak droite lañ ñoom ñaar ñooñu bu fekkente ne dañ dañu ne ba ñëw mu dellu si mu dalal ko dëfal ko teeru ko teral ko muy loola tax nag ngir loolu mën a am wa jaala baynakum mawaddatan wa ma daal di def mbëggeel ci seen diggante cofeel ci seen diggante waaye ma def yërmande ci seen diggante suñu borom ni loolu li ma def day nit ñi nga xam ni ay penseur lañ ñoom rek ñoo ciy xalaat li qawmin yatafakkaruna gaa ñi nga xam ne foo leen fekk ñuy xalaat ñoom rek ñoo mën a xalaat ci kawtif bi yàlla def ma ne nag léegi ginnaaw góor a waroon na dañ dañu di ñëw bu ñëwee fekk fi jigéen mu dalal ko léegi góor ak jigéen ñoo àndandoo di dañ dañi mu njëlli si waatee kenn ku nekk coono boppam doy na ko wëlis coono ko ca des bi ginnaaw li taskunu ilayha amut boo ñëwee doo fa fekk mukk raxma te raxma fu mu amul doo fa fekk mukk mawadda li taskunu ilayha bu deñee raxma daal di tuxu bu raxma tuxoo boo demee doo fekk mukk mawadda bala raxma di mën a jël palaasam day fekk li taskunu ilayha nekk fa mooy jëkkër balaa mën a yërëm jabar day fekk jabar def ay droit am moom mooy teeru gi ko yàlla waxoon ne ko bu sa borom kër ñëwatee na nga ko teeru teral ko na fekk mu def ko su ko defee rek rahma daal di ñëw su ko defee rahma bu ñëwee ma wadda daal di ñëw jigéen ji moom day daal di bëgg ku ki ba dootu am sagom. moo tax ma ne mu fasiroo ne ni mbëggeel ñi ngi ko gën a séentoo ci ku góor ki waaye rahma nag ñi ngi ko ci mbëggeel ñi ko gën a séentoo ci ku jigéen ki waaye rahma ñi ngi ko gën a ci ku góor ki kon loolu nga xam ne moom la suñu borom def léegi ñaari couple yii muy Adama awa ku couple boo gis moom la ñu représenté nga xam ne jenn jëmm lañ gauche ak droite la kenn ku ne xam na ni li loxo gauche man loxo droite mënu ko li loxo droite man loxo gauche mënu ko ku ci nekk dafa am bo boo war a boobu saa boo ko fi bàyyee rek soogi ñaaga dal di am. légui nak mané droit de l'homme ak femme féministe ni dañu jóg fekk ñaar ñu nga xam ni maanaam dañoo nekk wenn yaram ñu ñew ni leen dañu bëgg ñeen partager wenn yaram nekk ñaar yaram té moy jëk rek jabar wenn yaram la duma droit lumisti yi ni leen déedéet warta doon wenn yaram na ku nekk dema ko yaramam su ko défé bu parti bu li loxo nday joor ci manoon bu fi nekkul càmmoñ munu ko sooxee daal di am bu càmmoñ demee bàyyi fi nday jot li càmmoñ manoon nday joor munu ko sooxee daal di am borom ni kon nag lii tax ngeen mën a am avancement mën a am développement mën a ci seen àddina mooy nii ma leen ko waxee rek ngeen defee ko noonu borom ni ayoon naas taqu rabbakum خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا yéen doomu aadama yi le monde entier man yàlla maa leen bindi min nafsin waahid benn bakkan muy aadama alayhi salaam benn bakkan boobu ma sàkk ca sayyidatuna Hawa ñuy jurante di jurante ba fii ñu toll nii loolu nag boo gisee ma def ko man yàlla mooy damaa bëgg dafa am benn lien lu leen boole wala bëgg ngeen respecté ko maanaam ngeen respecté ko li leen boole bu dee jëkkër ak jabar lu leen boole mooy buumuk sëy suñ borom ni lien boobu leen boole yéen ñaar na ngeen ko respecté loolu ci jiitu bu dee frère ak frère sœur ak sœur sœur ak frère lu leen boole lien bi leen boole mayoon mooy deret ji ndey ak baay na ngeen ko respecté moo tax suñ borom ni wattaqu la allasi tasaaluna bihi wal arhama leen ne yéen ñaar ñoo ñile na ngeen ko respecté sinon bu yow man xëyaamee dina dinaa leen ko laaj bu ngeen ko deful ngeen ko war a defee ay di buri sara suñ borom nag lim tëje aaya bi mooy li gën a garaaw mu ne inna allaha kaana aleykum raqiba man yàlla maa ngi leen di contrôler yow jëkkër yow jabar fera bi nga xamee ne am na benn lien bu dox seen diggante yéen ñaar ngeen amale ko ci turu yalla ak yalla bi sallallahu alayhi wasallam man nangul len ko man yalla legi ma ngi len di contrôler ma ngi len di fuglu est ce ndax da ngeen respecter li len lien yeen ñaar wala dir legi nak ci lu loolu sun borom xamal nu ñi gor bi ñu nako ci forme bo xamni du gor ñëpp waye len ci ay gor ba tax mu ne fan ko lakum min an nisaa masna wa sulaasa wa rubaa wa in xiftum alaa taadilu fa waahida ba tey ma ngi suur nisaa ku yow góor may naa nga am benn lien deux trois ba quatre may ko am nga droit un femme deux femmes trois femmes ba quatre femmes mu ne may mu ne waaye nag fa in xiftum alaa taadilu fa waahida bu la wóoree responsabilité de wala trois wala quatre mënuloo ko assumer na nga yam ci benn boo mënta assumer deux trois quatre yamal ci ben bu fekke nak mën nga ko assumer mënu lolu mayna may la ko sa droit la bu la nexé boko ko assumer rek mayna naa la ko sa droit la bu la nexé mu wóor suñu borom ne am na góor ñu ko mën a assimilé mais am na ñu ko mënul am na ko mënul booba ci jëkk beneen bi ci des léeg-léegi fii ay bala maa jàll may léeg-léegi dinaa yedd tuuti jigéen ñi xam ne dañoo bañ a wujje wax ne jigéen ju bañ jëmam yow xamal ni doo dem àjjana jigéen ju bañ wujje du dem àjjana de xam naa boo demee jigéen ñaa ngi naan ay waa ji Moustapha Sam lu muy wax nii li may wax nii yàllaa ko wax kat jigéen ju bañ wujje du dem àjjana lu tax mooy àjjana wujjee fa am àjjana wujjee fa am da ngay gis wujji woo xam ne am na juróom-ñaar fukki junniy wujji wenn am juróom fukki junniy wujji am na àjjana kon yow mi bañ wujje fii ci àddina doo dem àjjana ndax àjjana wujje doo nga fa am jëkkër ju ne lu gàtt gàtt dana am juróom-ñaar fukki junniy jabar mooy ka ca gën a néewle ka ca gën a néewle laa wax de juróom-ñaar fukki junniy ah, la am yàlla ni la ñetti wujji fi ci adina wala ñeenti wujji wala ñaar nga ne ko asal duma ko def te ne ko nag bu ëllëgee dama bëgg a dugg ca sa àjjana ja nga xam ne moom lu ñaar fukki la ñuy am loolu c'est impossible kon nag toujours ma yee ci jigéen ñi leen da ngay gis aawa boo xam ne day ñëw fekk borom kër bi amul dara ñoom ñaar ñu ànd di boole seen diem ak seen daqaar ak seen sumpa ak seen buy ba yàgg ñuy xëy di lekk ceebu midi ba yàgg ñuy njañi ganaar ku góor ki yàlla dogal mu am keneen aaw bi daal di takki bagage am ñu ko duñ fi bokk nekk ñàkk fayda mënu ko weesu yow ba muy metti yow la woon mu dem ba neex am ku ñëw nga ne ko naa la bàyyi ak neexi du dem te xamoo ci looy dal boo demee nga bàyyee ko sa njaboot bàyyee ko neexit wi dina bi possibilité amé nga bayé ko lepp yow dem ñàkk fayda mënu ko weesu yow kay togal té assimé togal té assimé rek tiranga ji ginaaw man bi bi bi dara nekkul bam neexagul ma fi newoon kon bu neexee ñokay bok rek bu neexee ñokay bok bokk man duma abandonné duma duma abandonné sama place mukk di dem déedéet loolu ci ñak xel la bok loolu nag mooy muxaddima bi rek lu jaar la lu gaar ma di ko wax léegi bu ma ñëwee ci xaq yi nga xam ni góor gu ne amel na ko soxnaam bokk na ci xaq yi jiitu mooy li ñuy tuddee almaxr wolof di ko wax can góor gu nekk ameel na soxnaam can can googule saa bu ngeen waxee ba dàkkoo ci bu fekkente ni da nga caa dara la ca des boo ko ko ba yàlla dogal nga génn àddina bala ñoom miraas sa alal dañuy génne bu fekkante ne jigéen ji baalu la ko dañuy génne can gi ba noppi doog a miraas des ci alal ji moo tax suñu borom wax ci alquran ne wa aatu nisa sadaqaatihinna ni'latan fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu ani an maria suratu nisa suñu borom ne yéen góor ñi li ngeen jox jigéen ñi seenu can ca teel bu ngeen d'accordé rek ayo dal di koy jox ca teel muy nag boo ko joxee jigéen ji ak canam ba noppi nag mu wàññi ko waat tibb ca can nga may la mu ne loolu lew na la bu la neexee lekkal li ngeen d'accord ci canuk un million mun la jox ma cinq cent mille cinq cent mille ci des bàyyee naa la ko sun borom nee na lekk lew na la lekk lew na la waaye nag ngeen d'accord ci canu un million yàlla dogal euh, nga avance cinq cent mille mu sëy si ni ko góor ñu bari di defee te jaaduwul warta am mu sëy si nga fàtte fàttali can nga nekk ci yeneen doo mottali can nga doo mottali can nga ba xëy faatu ah bu ko balu dey da ngay fay ñun bala ñu miraas sa alal daañu ci tibb fay ko ma tax suñu borom ni teel leen jigéen ñi seenu can can gi nag xam nga am na minimum waaye amul maximum. can can ci lislaam am na minimum minimum mooy lan mooy rubu dinaar mënta ñàkk rubu dinaar rubu dinaar boo demee ci ñi jaay or boo leen laajee nu mu toll ci xaalis loolu mooy li mënta ñàkk ci say bi amaa nag fu can yam lislaam yëmalewu ko fenn ndax xintaar rek la alquran wax xintaar mën na dem ba minti milliard ça kon nag bu ngeen waxee ba dëppoo ci can gi suñ borom neena jox ko ko ca teel loolu droit wu ndaw si la maanaam dawaaram la droit la yoo ko ameel danga ko ko war a jox yow ko góor ki bokk na ci xaq yi nga xam ni góor ameel na ko soxnaam te alquran wax ko mooy wa ala almawludi la u risquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf laa tukallafu nafs ila wus'aha suratu baqara borom rabbi si jàll nee na yow jëkkër yow borom kër mu ne mu ne yaa ameel sa soxna yi ab dund yaa leen war a dundal yaa leen war a woddu ñu koy lime dëkkal dëkkoo dundal wodd yooyu xoqoox la yoo xam ne ay xaq la yoo xam ne yaa ko ameel say soxna waxtu woo leen ko joxul buñ la ko bàyyi si yow ma xiyaam daañu la ko topp mu na suñ borom ni waaye loolu kat bil maaruf it bil ma'ruf mooy na nga ko mane na nga ko mane ndax suñu borom nee na laa tukallifu nafsu ilaa wus'aha ilaa wus'aha man yàlla teguma benn bakkan lu mënut teguma benn bakkan lu mënut muy koddaay gi muy dundi lu ci nekk sharia nee na ni ko mane bil ma'ruf na ko def rek ci njekk na ko def ci njekk rek am na ci góor ñoo xam ne dañuy takk soxna yàlla may leen ma ne leen gan ñoom góor googu mu am alal am wërsëg gis jigéen joo xam ne xëy na fa ñu ba mu seen loxo jotul seen gannaaw mu takk ko mu ñëwee defal ko teraanga defal ay bokkam teraanga yàlla dogal ñaari baat ñett yu ñu wax mu ni ko xanaa tey la waaye ba ma lay fekk seen kër nga mel ne bantu bale loolu du bil maaruf de loolu rafetul de loolu rafetul de ba ma lay jël seen kër nga mel ni bantu bale yuloo dara foo toll di ko wax jigéen jooy denc yaag li nga am lépp mën na a boole suur bu dee jigéen ju am jom te defoo bil maaruf bil maaruf mooy li ko defal ci teraanga fàtte ko loo ciy tuddati loo ciy waxati booba ci jëkk beneen bi si mooy nga defee ko ni nga ko mënee mooy bu fekkente ni ko daayu gañi laa nga man ay ñaar nga man ay ca wax nga man ay ca risque nak bu fekente ni semaine bu ne nga rayal ko am xar mu dugal ci filistière bi nga man bismillah lo man la soow ay ca bismillah lo man rek mbum bismillah na nek bil ma'ruf rek na nek bil ma'ruf rek mu xamni li nga man mu d'accord ni li nga man li nga am waye nak bu fekke ni yow ko gor ki day boo xëyee jox sa soxna dépasse boo xam ni mënuñu caa am lu dul ceebu keccax foo dem ngoon reer jot nga taal sa oto ni tirri ci dibiteer yi lekk ba sa def nga lu bonte xaraam def nga lu ñaaw def nga lu ñaaw góor dafa war lépp lu muy lekk mu bokk ak njabootam waaye rek ndax xam ngeen ni yaram dafa soxla vitamine léegi nak bu fekkente ni yow doo nangoo lek ci lek ñom ba nupi nak baye leen ko rek ñom ñuy lek yo xani amul ben vitamine te yow bu guddee nga génn dem ni tuyi lek lu am vitamine jaaduwut defo bil ma'ruf de defo bil ma'ruf de suñ borom neena li yunfiq so saatin min sha'atihi wa man xudira alayhi risquhu falyunfiq ma ataahu la la yukallifu lahu nafsan ila ma ataaha sayajal allahu ba'da usri yusra suñu borom nee na rabistu jàlla li yéen fiq soo saatin min saatihi kenn ku nekk na sëgam toll nay dépassé noonu ci njabootam da nga am wërsëg man nga semaine bu ne ñu lekk yàpp lu la ko te li yéen fiq soo saatin min saatihi waaye suñu borom nag ni wa man qudra ali irisqo koo xam ne man yàlla maa xatal wër wërsëgam mooy wërsëgam bëriwut wërsëgam bëriwut suñu borom ni kooku it nag bu mu rey boppam na def li man wa man qudra ali fal yunfiq mima ata ula bul ray sa bop defal nga man la xosow nga man defal la xosow la xosow nga man defal la xosow bul ray sa bop muy ndax man yàlla teguma ben bakkan lu munut mu ni waaye bu fekkente ne yàlla dogal nga man la ko ndax sa wursak yatu won ñi dem ba yag man yalla ma manela gan ngay dem ba mujji ray am xara jindi ganar nangam mana nangam sun borom neena ah bu boobaa nag allah alallahu baada usri yusran gannaaw man yàlla ba ma la mënee gan nag ay ca léegi li leen fex saati min nga bokk gannaaw mënee naa la gan léegi ay ca loolu ma nga sóoratu talaaq waaye xam nga ni nag daa am ci góor ñi ñoo xam ni dañoo naya naya naya naya nay ba dëkk nayoo bi dañoo naya naya nay ba dëkk nayo bi duñ joxe dara loo leen wax ñu ni am te bu ñu kët joxe ko ci mbedd mi loo leen wax ñu ni aw ma te bu ñu génnee jaar restaurant ba déedéet jaaduwut de wërtaam de moo tax ci sari sariya ah, may na jigéen ji waxtu woo xamee ni boroom këram dafa nay ba dëkk nayo nayoobe ba du joxe dépasse bu doy lu doy njaboot gi sariya may na ko bu ko boroom kër bi joxe ba noppi lim koy jox te loolu doyut mu jaar ca gannaaw wàcc ca pos lu doy lislaam may na ko ko waaw xam naa góor ñi danañ takkaat seen poche yi bu baax waaye lislaam may na ko ko de boo ko joxee lu doyut moom njaboot gi te muy jigéen du ragal yàlla mu wóor ko ni lii nga ko dox doyut nag du jël lu ëpp njaboot gi kooku sari a may na ko mu jaar ci sa gannaaw jël lu doy njaboot gi sari du ko jàppe sàcc mukk du ko ko tuddee waaye nag saa boo xamante ni jël na lu ëpp niki tey dafa jël lu mu ndayele ji wala de caa jël lu euh, tege ab nattam wala wala loola moom sàcc la bu yow man xamee balaa jéggi siraat daa ko waaw loolu xadis boo xam ne sayyidatuna Aysa moo ko nettali radiyallahu ki ñuy wax Hind bint Xutbata sawju Abi Sufyaan la woon soxna si Abu Sufyaan la woon bi nga xamante ni sallallahu alayhi wa def na fatul Makka ba nga xamee ne jigéen ñi ñëw nañ di jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ni leen sama borom digal ma bala maa jaayanteeg yéen da ngeen di bàyyi planning ngeen di bàyyi planning jur doom ba noppi rey ko da ngeen koy ba sama borom digal na ma bala maa jaayanteeg yéen ngeen bàyyi seen doom yi ngeen rey indi ni ko fekk indi moo nekk njiital délégation wu jigéen ñi hindi ni ko a ah, bu dee loolu rek kay yow li ga def a gën a garaaw ndax yow ñun dañoo jur suñu doom yar leen ba ñuy gi jëm nga dajeeg ñoom ba dal rey leen bañ jeex Seydina Omar daal di xàq tay ni ñaw ndax xam nga ab yéefar moom boo ko ñawoo dara ni ko ab yéefar bu musiba dalee ca kawam nga ni ko ñaw loolu lislaam waxu ca dara yonent bi ni sallallahu alayhi wa sallam ni borom digal na ma bala maa jaayanteeg yéen yéen bàyyi njaaloo hindi ne ko hii yow naa as gor dana njaaloo as gor nag suy njaaloo ah déedéet kay sallallahu alayhi wa suñu borom digal na ma bala ma jaayanteeg yéen ngeen bàyyi sàcc mu ne ko hii yow mu ndax as dana sàcc sàcc nag mu ne a ah, xanaa lu man de wax dëgg yàlla Abu Sufyaan sama borom kër daa nay ba dëkk nayoobe du joxe lu doy njaboot gi duñ jox dara lu doy looloo tax nag bu ma joxee ba noppi ma jaar ca gannaaw rocciwaat nag lu ma ci doy am doy yonent bi sallallahu alayhi ko xusi maa yekk fii ki wa waladiki bil ma'ruf xusi maa yekk fii ki wa waladiki bil ma'ruf waaw mën ngaa jël de waaye booy jël nag na nga jël lu la doy yaa njaboot gi kese na nga jël lu la doy yaa njaboot gi kese kon bu fekkee da nga am jëkkër ju nay ba dëkk nayoobe yoon may na la lool ginnaaw lépp ci njaboot gi lay dellu si waat lépp jabat gi lay delu ci wat jëlee nañ ci muhawiyatu ibnu aidat mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na alayhi salaatu wasalaam nee na daf ni dama laj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko maa xaqu sawjati ahadina alayhi xaala alayhi salaatu wasalaam an tutximaha iza tahimt wa takshuha iza tasayt ولا tadribil wajha ولا تقبه ولا تحجر إلا في البيت رواه أبو داود محاوية ابن أبي عيدة سنينة دماء الله جننت بي صلى الله عليه وسلم نكو يوكي الله يوني ما لك أنا جن حق مونو ور نين غور ني سوني سخنا انا جن حق لاني اميل سوني سخنا انا جن حق لاني اميل سوني جبار نياري فيرسون ييب بي سخنا دينا كاي فار دي واخ سخنا mooy jigéen joo xam ni boo gisee may tudd ñaar yi loolu la mooy soxna dafa am jabar am soxna mooy kan mooy koo xam ni li ko lislaam sant lépp mi ngi koy def muur naw yaramam ragal na yàlla di julli waxtu juróom di jo sol lu jot te fatt te yaatu soxnaa ngoog kooku mooy soxna ana kan mooy borom kër borom kër mooy ko xam ne ragal na yàlla di topp digal yi di bàyyi tere kookoy borom kër jabar mooy kan moy kuy def daj ji boppam neen meesu ba digg ginnaaw feesal ba weex kooku du soxna jabar la du soxna jabar la jëkkër mooy kan mooy ku mel ni moom moom it yoonam ci yàlla santaane jabar ju def boppam neen déranger wu ko naqari wu ko jabar juy xeesal déranger wu ko naqari wu ko jabar ju sol lu dang dérange wu ko naqari wu ko jëkkër a ngoog moo tax muy tudd ñaari version yëpp jëkkër daa am jabar am waaye soxna dafa am borom kër am mu ne ko waaw ana kan ci ñun ñun ñii ñun borom kër yi ana yan xaq lañ ameel suñ soxna yi ñun jëkkër yi ana yan xaq lañ ameel suñ jabar yi yonent bi ko xanaa mooy saa lekkee nañ ko jox mu lekk so waddo nang ko jox mu waddu libaal mu muni bu la toñe nga jaar fi sari as jaar mu ko ca toñ ga so deme ba di ko duma moytul xar kanam ba sa loxo bum laal xar kanam bi bu ko dor ci xar kanam bul dam bañ bul tur deret mu ko tayit nag wala tuqba nga fexeba bul yaq abdaram nak bu yalla dogalon ngeen dem ba wala teqali len sax waye ya sa bo demé garam place sa derub soxna nga fa amé sama soxna li sama soxna la sun yonent bi ni dedet lol lol dëgganut da bok ci ay haqam ba yaq dem wala tahjur ila fil bayti naka noonu kat waxtu woo xam dem nga ba mera ko mermi mi bu mu génn kër gi mer mi ko mere bu mu génn kër gi de mermi ne yem ci seen yeen ñaar rek atta njabot gi dom yi ngeen jur sax waruñu ci xam dara dom yi ngeen jur sax waruñoo waruñoo xam ni seen bàyyi mere na seen ndey waruñu koo xam wala tahjur ila fil bayt bu ko mere bu génn kër gi mer mi bu génn kër gi ba tey loolu day dellu si waat ci li ma doon wax ci droit de l'hommiste yi ak fi femme féminisme yi xam nga sallallahu alayhi wa tudd na baatu dóor alquran tudd baatu dóor waaye fi mu boo doon wax boo tudd dóor ñu ne déggal intégriste la déggal nee naay jigéen dañ ko war a dóor waa dama ni loolu laa ni bu amul woon njariñ ndax yàlla dana perdal temps am di ko tudd ci alquran yàlla daa xam ni am na ci jigéen ñi ñoo xam ni dóor rekk leen mën a jubbanti yàlla xam na ko docteur bi docteur bi xam na ni garab sàngam gi wala maladie sangam bi malade eh, sangam bi garab sangam dong ko mëna faj motax mu bind ko ci ordonnance bi xamna ni garab malade sangam bi garab sangam dong ko mëna faj tax mu bind ko ci ordonnance bi lenn ci asatisa yi moy lenn ci yi lenn ci borom xam xam yi di jema tindi ko jema ragal baña tuddu batu dur te alquran tuddu ko muni wat wataral yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tuddu ko muni wat wataral lu tee wax waxe ko ni ko yàlla ko yonentam waxee rek nañ ko waxe noonu rek waaye ragal droit de l'homiste yi ak femme féminisme yi tax na ñemewuñ ko wax tax na ñemewuñ ko wax te ñaari baat yépp alquran tudd na ko alquran lu mu waxoon danaa ko wax ca kanam fa isoohunna wax juróoxunna fil madaaji wadribohunna wadribohunna alquran dafa joxe ñetti étape ni ñetti étape yi boo ci jaareek ak sa soxna te li ngay réglé réglé wul duma ko ñetti étape yi boo ci jaaree ci solution amul alquran ni na duma ko ah léegi li ñu alquran sant yàlla sant na ko moom la ñu droit de l'hommiste yi tere femme féministe mi tere nañ ñu ko parce que suñu borom yàlla daa xam ne jigéen jigéen ak ni mu diiñee ak ni mu diiñee bu dee jigéen ju mat jigéen du du du am mukk du am du jëf mukk jëf juy tax lex boo xam ne boroom aw tuñ la ca teg mu dem ba ca di ba ca di tegum talaata loolu jigéen jombale na ko boppam lex boo xam ne boroom am tuñ la ca daan teg su demee ba da ca tegum talaata suñ borom suñ borom dafa xam ne kon jigéen ji jéggi na dayo sayyidatuna Aïcha radiyallahu anhu ci hadis boo xam ni nisaa yi génne na ko sayyidatuna Aysa na maa daraba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la wala xaadiman xattu mu ne xam nga alxuraan dañuy dóor fee yonent bi ni dóor fii daan ne booy dóor yax léegi dóor mën nañ ñu farata ndax alxuraan a ko tudd waaye ñàkk a dóor la ndax yonent bi mosu koo def waaw lu tax borom xam-xam yi duñ ko leeraloon nit ñi xanaa bëgg lu neex jigéen ñi bàyyi fi dëggu yàlla gi bëgg lu neex jigéen ñi tax ñaan jigéen waree su ko duma te muy yàq bu ne wàtt ci alquran hadis bi ma nett léegi sayyidatuna Aïcha daf ni sallallahu alayhi wa sallam day mësta dóor soxnaam mësta dóor mbindaanam sallallahu alayhi wa sallam mësta dóor soxnaam mësta dóor mbindaanam loolu mooy sunna ñàkk a dóor mooy sunna te mooy li gënit nag bu mënee am mooy li gën bu mënee am waaye nag du tee booy jàngalee ba agsi ci li alquran wax waxe ko ne ko alquran wax ba ñëpp xam ne alquran lii la wax ba bu ëllëgee bu fekkee ne am na keneen ku ko def ñu xam ne kooku la ko lislaam may dong la def ak lu ko ca mën a fekk ak lu ko ca mën a fekk rek li ko lislaam may la def bu fekkee ne jaar na fi lislaam wax bu jaar na fi lislaam wax kon nag daañu gis ni daal li gëna bari ci suñu jamono bi sharia wala l'islam dañ ko mbubboo woon nii rek dañ ko mbubboo woon nii rek waaye daanaka xawuñu ko appliquer xawuñu ko gëm ndax buñu démé ba nga xamni ñi waroon wax dëgg ji ñokay woy légui ñokay woy koy wóoy mu ne daal bokk na ci xaq yi nga xamni nak ay droit la yu góor amel soxnam moy bu woddoo nako jox mu wodd bu lek nako jox mu lek bu naanee na ko jox mu naan foofu ba tey mu am muskila bu fekkente ni yow ku góor ki da sol ay jasnet di xottil say soxna ay wax saki xartum ah déedéet wërta am xottil ci jasneer yi jox leen comme yow mhm. da leen di jox sombit ngoon reer dem di biti reer ba suur ah déedéet Wadu duggé melham, xam lu tee nga ci ndaw ngeen bokk ko sallallahu alayhi wasallam an tuthimaha isa tahimta bo lekke jox ko mu lek bul yàq diram mukk mukk mukk ci fenn même bu ngeen demoon ba tagali ko yit bul wax ci mom mukk lu ñaaw am bo xamni Abu gene sallallahu alayhi wasallam daf ni kafa bil mar'i isman an yu day a min yàqooti doy na jëkkër bàkkaar doy na jëkkër bàkkaar mu ñàkk dundal njabootam mu ñàkk dundal soxnaam mu sànq seen àqi dund doy na ko bàkkaar doy na ko bàkkaar rek mu xaq sànq xaqi dundal jim leen waroon a dundal taxawu leen doy na ko bàkkaar kon nag xaq yooyu ameel ko ndax jigéen ñi seeni droit ni ko l'islam définir wallahi buñ leen ko joxoon jigéen ñi duñ am benn muskil waaye nag Occident xam nañ ni àq ji l'islam dox jigéen waxtu woo xamante ni nii jox nañ ko jigéen ñoom dootuñu mën a jariñoo jigéen ndax bu boobaa jigéen day nekk ci milieu bu seen milieu bu efficace te yéene wuñ jigéen mu nekk ci milieu yu mel noonu xam ngeen ni tey la seen 8 mars ñoom jigéen ñi ana ñan la ñuy ci seen 8 mars yooyu ñan ah waaye fi mu ne nii bu leen ko dina fëkk ne leen daanaka duñ ko sax bàyyi xel duñ ko sax bàyyi xel normalement 8 mars bu ñëwee fii ci Sénégal moom fii ci Sénégal xaw ma mel réew. waaye affiche yëpp ay soxna jaara la waroon a doon mbedd yëpp dañ ko waroon a afficher ay soxna jaara ay maam faa waat wele waaye ay talaata ay ndeer ay ay révolution yi nekkoon Amérique doon kaas seeni droit ci travail yow jigéen l'islam dañ la woon l'islam dañ la woon ñu yor la yaak sa njaboot kon nag boo demee bay travail l'islam terewul jigéen bi liggéey déedéet terewu ko Sayyidina Xadija daan liggéey xana kay ci façon biñ koy waxé ni mom la dawul def Seydina khadija dawul jël avion di dem Dubai di dem Angleterre di dem di ñëw déedéet te mo nekkon min milliardaire Makkatul karama danaa ko wax ci kanam xeyna jëlé nañ ci jabir radiyallahu anhu muni sallallahu alayhi wasallam kérok hajjatul wada moy aj gi nga xam mom la mujj aj xam ngeen ni aj googu khutba na ci khutba bu gudd gudd te yàgg ndax julli nañ suba muy khutba ba tisbar ñun julli tisbar muy khutba ba takusan waxna na li nga xamni mo wara am ba yalla bindé adina bi ba dootu am waxna wax sax kat yi nga xamni dañu wo dañ ñew di wote te nek ay fen ay kat nek ay musay musay lamatul kasab ngeen ko suñu jamono bi fen fa nek nit nga fa di wote ak yenen ñi ay goor lañ ñi ay jigéen lañ waaye ñun ñëpp ay musaylama rek lañ musaylamatul kadab keroog xutbaam boobu wax na ba wax yooyu yëpp wax na ñi nga xam daañu ñëw danañ woote sax donte ñetti nit danañ leen topp ñu réerale ba lépp sallallahu alayhi wasallam wax na ko waaye gis nga bis boobu sallallahu alayhi wasallam di def xutbaam boobu di xajjatul wadaa daa waxoon ci biir xutba ba nee na jaabir moo ko nettali mu ne sallallahu alayhi wasallam dañ koo dégg muy xutba ba yàgg mu naan fa taqola fi nisaay fa innakum axastumuhunna bi amaanillah wastahlaltum furujaxunna bi kalimatillah ولكم عليهن إلى أن يؤتين فراسكم أحدا أن تكرؤونه فإن فعلت ذلك واضربوهن ضربا غير مبرع ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم jaabir nee na radiyallahu anhu dañoo dégg yonent bi xutba ba yàgg mu naan ay waa jile ragal leen yàlla ci jigéen ñi ay waa jile ragal leen yàlla ci jigéen ñi ay waa jile ragal leen yàlla ci jigéen ñi muy ndax yéen góor ñi bi ngeen daataan jot ci jigen ba saña tas as kumba am te kenn dula ci bindal bakar xana di la ci bindal tuyaaba lola bam daatan am mu ah, muni kaddu yalla nga fa yobbu de amanatullahi nga yobbu ñu door la ko mën daganalal kaddu yalla ñu daganalal la ko ci kaddu yalla ak sunnas muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tax nga saña tas as kumbam, ñu di bindal tuyaaba te kenn dula ci bindal bakar sallallahu alayhi wa toog na ak saxaaba yi benn bis ba yàgg mu ni képp kenn ci yéen ku toog ba yàgg mu tas kumba soxnaam sunu borom mu ngi koy bindal tuyaaba yi jaamu yàlla ñu ni yow yonant bi moo nga xam ne satisfaire sa bakkan rek la yàlla dana ci bindal kenn tuyaaba sallallahu alayhi ne ah, ko tasoon kumba su la lu ni ngan dum bàkkaar mu ni kon jeex na ginnaaw ko tas kumba su la dëgalul bindal la ngandum bàkkaar bil jinu bàkkaar kon kay boo tasee su la dagan tuyaaba la tuyaaba lañ ci bindal mu ne kon nag moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ragal leen yàlla ci jigéen ñoo ñii nga xam ne sañ ngeen a tas seen kumba te dara du leen ci fekk lu dul tuyaaba kon ragal leen yàlla ci ñoom mu ne ameel nañ leen ay xaq gaa mu ne bokk na ci xaq yi nga xam ne ñoom jigéen ñi ameel nañ leen ko moo di suñu ma toogloo ci seen lal kenn kuñ ca ku leen ca neexut maanaam daal suñu ñoo entré waxoon naa ko ci waxtaan wi weesu suñu ñoo entré kenn ci kër gi te neexula yow borom kër gi mu ne waxtu wuñ defee loola yoon may nañ leen bu ngeen leen ko teree ñu bañ ngeen duma leen mu ne waaye bu duma yéen nag bu mu dam yax bu mu bët bu mu nàccal deret mu ni amel ngeen leen ay xaq mooy wala xunna aleykum risquhunna wa na amel ngeen leen xaq di leen dundal di leen wodd góor gi nga xam ni yàlla da ko wërsëgal soxna soo xam ni moom yàlla dogal na mu mën a yor boppam am na wërsëg mu yor boppam taxul àq jim ji ko ameel ci dundal ko wàcc la de xanaa lu dul ni moom moo la wax dëgg yàlla de man am naa lu ma yore sama bopp jéggal naa ko kon wàcc na la kon wàcc na la jamono bii ñu toll yàlla baal na ma góor ñi baal ñàkk da ci am góor ñoo xam ne dañoo ñàkk joma ñàkk jom ba jigéen bi am alal dong la ñuy wut ba ñëw wéeru ci kawam di dund ci kawam rek fa suñu yéenee xaste xànc ak morom jigéen ju am alal rek moo tax góor ñu bari jigéen juy liggéey lañ gën a préféré sax ci jigéen ju nangoo toog ca kër ga di sëy léeg-léeg ma xaw cee mere jigéen ñi léeg-léeg nga gis jigéen ju sëy ñu ne yow looy liggéey nga ne man liggéey ma dara de تفك يو نغن جي ليغي موم غاي ليغي ليغي بوبو القران سانتاني موي سي سي سي ليغي لا ياغي تي بن اسين دي بروديير اي وليو دي بروديير اي يونان تي اي برومي خام خام اي عالم اي بريزيدان اي ميدسان اي بروفيسور يا لين دي بروديير كون كاي ياغي ليغي خنا سا فونكسيون غا خمول سا فونكسيون غا مام غور ньо خاني ньоم جيجين بي ليغي لاญ xanaa fi tayel ñak jom lañ ma baal ñak jom même jigen ji bu la nee man amna tiranga man na maa yor sama bop loolu bu taxé sa way ngon gu jot nga rayep ko lu dem lek sey gënar ba sour fanan asaman sen nga wa sab ko lu dem waaye waaye xana war nga am jomi sax léeg-léeg nga jaar ci marché ba sax jënd fa cornetu caaf bopp ne boo yuru dara xana benn bis sax nga góorgóorlu ba jënd kornetu caaf yóbbu ndax wolof njaay nee na teraanga kenn du ko xeeb waaye duñ góor ñi duñ ko def xam nga fas yéenee fexee lekk sax li ndaw si yor bis bu ne mu ko naan lebal ma nangam abal ma nangam dama am procès sangam su ma ko lijjantee fay la mu de mu daal di dem décompté bankam yëkkati alal jox la nga lekk ko ba noppi nit faax tëdd ca fasoo ko yéenee fay ba loola sax man na indi in diggante ba mujj far ngeen teqali ko ngeen di dem tribunal ak ñëw lu ko jar yow kay boo ko joxutu bàyyee ko lim yor amaa nag bu toogee ba yàgg moom ci boppam mu yëkkati ci ñaqam woowee alalam joojee teeyug bakkanam comme ni ko alxuraan waxee liñ yëkkati seen teeyug bakkan jox leen lekk leen loolu moom maa muskile fii loolu dara nii ku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna Xadija bi mu koy denc fekk mu amee alal. mu xam ni Moustapha alayhi salaam mii lu ko Xadija jox yàlla la koy jox sayyidatuna Xadija xam na ni Moustapha alayhi salaam mii lum ko jox du génn yàlla alal alalam ji lu ko ci jox dana ko delloo ci yàlla loolu taxoon sayyidatuna Xadija daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko samay compte banque ngi nii moomatuma dara maag li ma moom yaanu boole moom alayhi salaam ku ko defoon góor ñu goree di ñii dañuy dem retirer vide compte banque bi yëpp foyee ji ko ñëw toog di xool mbaa ñu takk ji koy jabar ñëw toog di xool kon nag du caaginum ni ah sayyidatuna Xadija alal jim yor jox na ko bu fekkente ni yàlla da laa boole borom kër boo xam ne xamoo ci moom la Xadija xaman ci yonent bi te mooy ragal yàlla nangoo jaamu yàlla di liggéeyal lislaam kon baye boo téye sa alal boo gisut loo xam seet ma def waaye nag bu la wóoree loo ko jox mu jox yàlla waaw kay su boobaa moom da lay wóor ni yaa ngi jaamu yàlla sa tuyaaba jëpp ci yàlla la la koy dellool bu yowmal xiyaamee boo demee fekk ko fa bu soo demee fekk ko fa waaye góor gu ñàkk jom rek na ma yàlla baal mooy préféré pour am soxna soo xam ni borom alal la ba mu wéeru ci gannaawam rek wéeru ci gannaawam sayyidina Xadija radiyallahu anhu radiyallahu anha kii doon nampal yonant bi muy alima dafa mas ñëw di seet si bi sallallahu alayhi ñu toog di waxtaan bi ko yonant bi séenee dafa jóg lalal ko kaalaam mu toog ñu sama yaay ñëw na sama yaay ñëw waaye moom yonant bi sallallahu alayhi wa sallam xam na ne ndeyam ji ko doon nampal buy dem amul dara lum ko jox waaye taxul mu ne Sayyidatuna Xadija abal ma lu ma ko jox de daa noppi rek waaye Sayyidatuna Xadija ca intellectuel am nga ca xam yonent bi sallallahu alayhi wa ca ker saam ga xam nga nu def daa dem yeewi gittu xar teg ne bu doon léegi nga ni daa dem retiré ca banque ba million def ci benn enveloppe ñëw daal di koy buux yonent bi ndànk ni ko sa ndey ju ndaw ji buy ñibbi yeewee ko lii yeewee ko góor ñi nag ñoom duñ seen bopp ñoo lay laaj dooma lebal nangam ma lijjanti procès sàngam fekk dara boo demee sax loolu muy wax lépp hôtel lay dem tëdd faak moom noose ji ko ak jigéen ñun tëkkul ila axirihi loolu moom dara jëru ko dara jëru ko kon góor ñi bokk na ci xàq yi ameel jigéen ñi mooy li tax ñu sañ a tas seenu sukumba te ci am bàkkaar turu yàlla lañ fa yóbbu ginnaaw turu yàlla nga fa yóbbu ak amaanaam dëgg rus yàlla ba doo fecc ko ci sa digënté ak soxna soosu nga xam ni tur yàlla tox mus nga sañ a tas as kumbaam te dund war nga ko rusa taayir war nga ko rusa nax war nga ko rusa ila axiri ila axiri yi beneen bi mooy amel nga ko koddaay bokk na ci xaq yi nga xam ni góor amel na ko ay soxnaam mooy askino xunna min ay su sakkantum min wujdikum wala tudaaruhunna li tudayiqu alayhinna ba tey loolu ma nga sóor salaax su bokk na ci xaq yi ngeen amel seen soxna mooy na ngeen leen dëkkal fu ngeen dëkk askinohunna min aysu sakantum min wujjikum na ngeen leen dëkkal fu ngeen dëkk bu dee suñu réew mi di Sénégal da ngay dem ci jenn kër borom kër rawatina sax ci àll beeg yooyu mu tabax ba bâtiment bu rafet dëkk ci bàyyi soxna yi ca néegi ñax ya bu nawetee ñuy dañ dañu ni xorandoom di tawte ah déedéet bâtiment bi nga dëkk lu te nga dëkk leen ci mbaa nga tabaxal leen bâtiment ñoom it na min ay su sakantu waaw ah, moom kay bokk leen dëkk ci néegi ñax yi mbaa ngeen bokk dëkk ci bâtiment bi waaye nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga daal di tabax sa bâtiment wala bu dee ba tey da tukki tabax sa bâtiment boo xam ne yow boo ñëwee ca ngay nekk jigéen ñi yaa ngi leen bàyyi fële baraag yaa yu kenn xamul déedéet askinuhunna min ay su sakkantum benn bi des mooy bu fekkee da ngaa nekk réew te nga mën a yóbbu sa soxna ba tey day dugg ci askinuhunna min ay su sakkantum mooy yaa ngi bitim réew nangami at nga fay def ngay yóbbu sa soxna foofa it ba ma maa muskile fii léegi nag tax góor ñu bari ragal ko mooy da takk soxna fii yóbbu ko bitim réew ak mu tàppaas la ngeen am ay jafe-jafe mu daal di dem seeti jeneen góor. ba tax na góor ñu bari ba tey foofu tax na nangootuñu yóbbu jigéen ñi bitim réew léegi nag jigéen ñi nga xam da ngeen a dox daje fa rek nag moom dalay wax ni nii nga ma fekkoon nii nga may ba rek benn ngeen ànd ci noonu mbaa nga bakk ko wallahi ba léegi boo demee bitim réew danga fekk jigéen ñi xam ni ba tey jii ay gor lañ ña sëy nañ war a sëyee te fii la ñu jóge fekk seeni boroom kër foowa waaye tëriwul ña ngay sëy nañ war a sëyee yàlla lañ ci seet ndax sëy jaamu yàlla la sëy jaamu yàlla la mhm. sëy jaamu yàlla la suñ borom ni walaatu daarooxun na bu leen lor seen soxna yi ci fi ngeen leen di dëkkal bu leen leen jox situation boo xam ne nii dañ cay loru dëkkal sa soxna ci benn situation boo xam ni da cay jële loru rek te suñ borom nee na li tax nga def ko du sax ñàkk waaye li tu dayiqu alayhinna da nga ko bëgg a fitnaal rek bëgg ko fitnaal dong nga tax nga dëkkal ko fu mel noonu bu fekkoon ni sa doolee ko mëne matewul waaw kay waaye sa doole mate na ko waaye nag bëgg ko fitnaal rek moo tax nga bàyyi ko ci baraag bi yow nag tabax bâtiment bu mel ni pale am na ñoo xam ne sax am nañ audace bu toll ni jël seet ba dugal fa fàtte aawa ba fële déedéet warta deme noonu de wërta demee noonu de mhm. bokk na ci xuquuq yi wala bokk na ci àq yi mooy al adlu bayna sawjaat maandu diggante borom kër bu denc ëpp ñaari soxna boo xasee denc benn soxna saria dal obligé nga maandu seen diggante في المبيت والنفخ والكسوة في المبيت والنفخ والكسوة ميغا نعم، مانو سين ديغنتي تي المبيت موي بانان ما ميغا نعم، مانو سين ديغنتي تي نفخ موي ديباس بي ميغا نعم، مانو سين ديغنتي تي الكسوة موي كوداي مبرم نينا القران واسروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا waaye llaahu fii xayran kasiira na nga suurat nisaa <clears throat> ngeen baal ma mbara bu sutu jàll nee na waasruhunna bil ma'ruuf jëflante leen jigéen ñi njëkk ak tiraanga jëflante leen jigéen ñi njëkk ak tiraanga mu ni ndaxte léeg-léeg léeg-léeg nga nga nga nga dummóoyi ca kenn mere ko beddi ko sun borom neena bo demé ko ki kii nga moy méré ko waaj alallahu fi xayran kaseera defna ci wenen yiw bu bari defna ni ci ko bi don doon jumaa ji rek waxna ko moy da ngay am sa soxna bo ne ben mun la fukk ak ñaar bul dem muni dem bandar noppil wax ba xottiku xam nga mom munu ko wess waye nak boo demee moom moom yi moo gën ci sa biir suñu borom nee boo demee moo gën ci sa biir mu ni léeg-léeg ngeen fekk ci jigéen lu ngeen bañ loo xam ne bëggu leen ko xaasa an takrahu shay'an bëggu leen ko ga waaye nag suñu borom nee na loolu nga ci gis ba bëggoo ko am na leneen lu ma ci lu bari la ci aw yiw lu mën a tax nga mën a muñ li boo demee benn muñ fukk ak ñaar waaye boo demee moo gën ci sa biir da lay toggal lu am vitamine te ñor boo demee moo gën ci sa yére du la bàyyi mukk nga tilim seen saa waaye nag du la nag borom ni waaw fii négatif waaye fii positif na mu ne kon nag comme fii négatif na fii positif war ngaa mën a muñ bi pour positif bi war ngaa mën a lu négatif li ngir lim positif ak lu positif ngir lu positif li loolu la suñu borom wax gis koo xam ni moom du la wannal baat wala boog dana la ko boo waxee du tontu loo ko digal mu def loo tere mu ba yem ci say loxo waaye nag am xelam yëggul ci yii ma wax léegi mooy balaa fu yaa ko fóotal ma bala nga lekk yaa ni toggal ma et cetera et cetera kon ku ci ne am na tuuti négatif suñ borom ni nag yu négatif yi da ngeen koy muñee yu positif yi nag yu négatif yi mu ne leen ko positif yi waxoon naa ko même ci jëkkër ak jabar moom it noonu la moom it noonu la wa ashruhunna bil ma'ruf waaye fa in karihtumuhunna fa haasa an takra'u shay'a waaye wajal allahu fi xayran kasira xayran kasira alquran nee na wala xunna misluhunna alayhinna bil ma'ruf ولا بوك ولا حنا مثل الذي عليهن بالمعروف bil maaruf wala rijal alayhina daraja wallahu xasun akim moom laa tàmbaloon keroog suuratu baqara moo di ñaar ñëpp kenn ku ne dafa am ay xaq ca morom ja kenn ku ne na def ay droitam soga laaj ay dawaram kenn ku ne na def ay droitam soga laaj ay dawaram ñu waxani góor parti la ci jigéen jigéen parti la ci góor ci addis boo xam ni ku ñu wax samrata moo ko solo mu ni sallallahu alayhi wa sallam na jigéen ñi ngi ko bind ci faar ñi ngi ko bind ci faar xam ngeen faar de xam ngeen ni faar day dëng mu ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa faar nag faar nag ab yax la boo ko forcé bëgg koo lem a bëgg koo jubbanti ngir mu tàlli jub xocci nee na xam nga ni ca damm la jëm faar nga bëgg koo jubbanti nii dana jub xocc nee na da nga koo nar a damm rek mu ni mooy jigéen mooy jigéen de jigéen moom boo bëggee ne faaw li ma ca lay jaar coow ci yoon wi ah déedéet mu ni tey ba tey boo toogee rek seetaan ko it dana lemu ba faf damm moom it rek day lemu rek di wéy kon nooy def ci giñ cagañ mooy del wax del jubbanti del masla ila axiri ila yi mhm. ñu gis ni kon daal jigéen diggam ak borom këram dara wuru faa xaj lu dul ay partenaire lañ sallallahu alayhi wa ci hadis boo xam ne abdullahi ibnu amr moo ko nettali mu ni sallallahu nee na xiyaarukum xiyaarukum li nisaayihim yéen góor ñi daal ki ci gën mooy ki gën ci ay soxnaam ki ci gën moy gën ci ay soxnam légui lan moy gënël nak gën ci say soxna moy lan ndax moy luñ def rek nga ni luñ def rek nga ni non la ndax lolu moy gënël gi moy bayyi len ci seen balaxal madda dedet sallallahu alayhi wasallam neena bo len leen ci seen balaxal madda musiba am de waye ndax it nak da nga nan for force rek ñoom ñepp dañuy maase ci li ñu ni ba du nonu de du noonu de xiyaarukum xiyaarukum li nisaayihim moo di lenn nekk am na waxtoom am na heure am na bisam kenn ku nekk sallallahu alayhi wax na ko ci hadiis ba fa ahti kulla si xaq xaqahu kenn ku nekk na ko jox ay droit ndax seen droit yi tolloowuñu kenn ku ne na ko jox ay droit xëy na wax ko incha allah kon maandu googu mu wax léegi moom it xaq la jox léegi nag maandu googu sariya wax ci hadiis bi sallallahu wax ko alquran wax ko maandu te googu mooy lan al adlu bu dee wolof yi dañuy firee maandu li ñuy tuddee ñoom yamale lañ koy wax wolof da koy firee yamale waaye maandu du yamale maandu bokkut yamale yàlla santu benn yoon ñu yemale suñ soxna yi suñ borom nee na walan tastatixu an bayna nisa walaw arastum fala milo kulla mayli fa tasruxa kal muallaqa muallaqa suñ borom daf ni bu ngeen bëggoon a maandu diggante jigéen ñi diggante seen soxna yi du ngeen ko man man yalla li len téré moy dal jeng bani ni ci souf loolu lay tere jeng bani ni amna ño xani gor ño xani góor jeng ba supp jaleñ ñom dañoo jeng ba supp jaleñ suñ borom ni loolu lay tere nak jeng ba supp jaleñ lay tere waye jigen ni bu ngeen bëgge maadu ci ñom it du ngeen ko man léegi maadu gogo moy lan wala firé ko yamale yamale moy fifty fifty lol l'islam sëntuñu ñuko boo yoree sa ñaari soxna kii defa njool ki ndaama la kee six koy jot ki quatre mètres xam nga loolu noonu la lislaam gis man al addulu mooy ki nga xam ni six mètres ko jot jox ko njëgu simet mu jëndi six mètres ki nga xam ne quatre mètres ko jot jox ko njëgu quatre mètres loolay maandu kon l'islam xam nga num xamale num xame num numi numi firé manu moy fa ahti kulla si haqq haqqahu kenn ku nek nga jox ko li akam lolu moy manu ci l'islam lolu may manu ci l'islam de waye yamale moy ki kat mètre ko jot ki 5 ah kenn ku ne nga jox ko 6 wala kenn ku ne nga jox ko 100 kon mandu wo ndax benn bu fekkee da nga leen jox ku ni simet lor nga borom ku njool ki ndax ke ëppalee na ko deux mètres bu fekkee da ngaa jox kenn ku ne quatre mètres ba tey lor nga ku njool ki ndax li nga ko jox du ko jot kon nooy def kenn ku ne li ko jot nga koy jox loolu moo di maandu suñ borom ni waaye nag am na lu ñu tuddee xol xol mu ne loolu moom mënu leen leen cee yemale xol bi moom ñu cee yem mu ni bu ngeen ko jéemoon it jéem a yamale jigéen ñi ci seen xol du ngeen ko man loolu tax sallallahu alayhi wa sallam bu ñëw andi sarica da koy séddale bu ko séddalee ñëpp yam ca kenn ku nekk mu jox la la say sa bu noppee ne suñ borom ah man de li ma muy sarica bi séddale naa ko ci maandu xol bi nag yaa ko moom man moom moo ko yaa ko mën a contrôler te xam ngeen ni taarix saxal na ni Sayyidina Aïcha la gënoon a bëgg ci soxna yi ñaari ganaar sax boo leen yoree am na ganaar goo ci gën a bëgg waaye nag li lislaam di bañ mooy nga manifesté ko nag wane ne ginaar gii laa piiteel ginaar gii laa gën a bëgg déedéet loolu lislaam mayu ko de lislaam mayu la ko lislaam mayu la ko wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kaana xafuur rahima képp ko xam nag dangaa jengoon ba sëpp jalañ gannaaw bi nag nga dégg ni jàng ba sëpp jalañ jaaduwul nga dellu si waat tuub réparé la nga yàqoon réparé la nga defoon te boo ko mën a def na su boobaa man yàlla da nga ma fekk may koo xam ni xafuur laa rahim laa yow mi jengoon ba sëpp jalañ nga dégg ni jeng ba sëpp jalañ jaaduwul wërta am nee na nga tuub deltu gannaaw yemoo ca nga réparé la jot a nga réparé lu jot a léegi naa yéen tukkikat am na ci yéen ñoo xam ni bu ñu seen soxna fañ tukki ne moom muy aye keneen kaa ngi Sénégal muy aye di aye di aye ba yàgg nga àndaat ak moom ñëw Sénégal nga ne ko comme ba ma nekkee Italie yaa doon aye rek nag kon fii tamit nag doo aye da ngay bàyyi ki fi nekkoon di aye di déet loolu boko beugé dang ko fay ba te ñëw mennum yow dang ko fay ba te ñëw mennum yow waye ginnaw xës nañ ñëw ci bop ci kër gi kay ay te sallallahu alayhi wasallam sallam ci hadith boo xani abi urayra moko solo muni man kana lahu imra'atan fa alayhi an ta'dilu fi al-qism fa isaa baata indaha laylati aw laylatayn aw salaasa baata indal ukhra bi qadri salika la yufadlu ihdahuma fi al-qism sallallahu alayhi wasallam sallam nee képp kenn ci yéen ku yore ñaari soxna ñaari soxna yi ñoo bokk benn béréb bu ñu ne benn ñu bokk benn béréb mbaa ñu bokkum réew ala kulli xaal sallallahu alayhi wa boo fanaanee fii benn fan fanaanil fële benn mbaa boo fanaanee fii ñaar fanaanal fële ñaar boo fanaanee fii ñett nee na fanaanal fële ñett te ka ca des bu kenn ci yéen di jéem gënale soxna yi ci am mun ni bu mu am de léegi nag boo fa fanaanee kay la lislaam di wax ni ala qadri taaqatihi lislaam nee na boo fa xasee fanaane nag léegi li ma la may mooy ala qadri taaqatihi néew ñu la masalan dangaa fanaan ci aaw bi wala ñaareel bi yàlla dogal ba nga fanaanee ci moom nga gën a sawar ngeen baal ma ci moom nga gën a sawar l'islam du la wax mukk ni ni nga saware woon bi nga fanaanee si ñaareel ba wala ba nga fanaanee si ñetteel ba noonu ngay saware ci ka cay des déedéet l'islam forcé wala ci loolu allah qadri taaxati yi ndax mën nañoo wuute ñoom ñaar mën nañoo wuute am na ci bari yoo xam ne sama kersaamu dul ma mën ko expliquer waaye mën nañoo wuute ci ñoom ñaar gis ngeen léebkat ba léeboon na ni dafa am jigéen joo xam ni dafa ñëw di kalaami ilimaan ñu ko man sama borom kër bi daal faale wu ma yëguma euh, nangam nangam wax a waxoo mu ne ko waaw baax na léegi takkusaan na nga ñëw ci jàkka ja takkusaan bi ñu jullee ba noppi mu ñëw ci jàkka ji mu dugal ko ci néegu jàkka ji daal di wax ay euh, <coughs> lenn ci ay paa ñu toog mu ne soxna si ati génnal soxna si génn romb paa yi ba jàll moom élément ji mu génn laaj paa yi toogoon waaye yéen ki leen romb fii góor la am jigéen ñoom ñëpp ñu mas ni ko ah ki fi jaar de daa ni góor la ki fi jaar de mel ni góor la mu soxna si mu woo mu ne ko gis nga ko nii lii tax sa jëkkër amul ci yow aajo jigéen joo xam ni mën naa jaar ba jàll ñu di ko jaawale góor nga xam ne sa odeur wanewu ko jigéen benn bu la rombee rek odeur bi war na ko war na ko wan ba mu këram waxuñu nag ci tabaru ci mbedd mi mag ñi dañ ko daal wax dañ wax naan jigéen day xajam jigéen day xajam maanaam euh, vraiment bu fekkente ne romb nga sa borom kër war nga faa bàyyi odeur boo xam ne mu neex ko mu naqari ko dana ko xeñtu ba mu yëg ni jigéen mu ne ko fii war nga faa bàyyi bruit boo xam ni mu neex ko mu naqari ko dana yëg bruit boobu ba xam ne jigéen romb ne ko fii bu fekkee ni nag fanaan na fee génn guddi fanaan fee génn guddi lislaam du ko wax mukk ni ko nanga nga saware woon ca néeg ma sàmba wala ca néeg euh, awa noonu ngay saware néeg kumba déedéet loolu moom ala qadri taaxatihi rek la moom ni ko mane rek la koy defee kenn du ko ci forcé kenn du bokk na ci xaq yi nga xam ni borom kër ameel na ko soxnaam mooy li ñu tuddee maanaam mudaara borom daf na xamal ci alquran nee na képp ko xam ne ci yéen góor ñi yàlla wërsëgal na ko soxna ñi ànd ci jàmm ak salaam ba yàgg soxna sa tàmbalee indi ay bang-bang si ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew soxna su su tàmbalee indi bang-bang ñaara ko waral am na lu mu gis ci mbedd mi lu mu fii lu mu ci yow wala tase naag góor bu ñàkk a maandu ko wan al wan ko ko boo fexee ba tase fi nga ne ma takk la loolu mën na indi xaal daal. am na lu tax mu xëy rek di bang bangi alxuraan nee na ku ci am sa soxna mu xëy di bang bangi nee na indil naa la solution nga xool ba xam walaati taxaafuuna nusuusuhunna fa aysuuhunna waxduhunna fil madaajihi wadribuhunna fa in ataxnakum falaa tabqu alayhinna sabila suuratu nisaa suñ borom ne ku ci am soxna mu toog ba yàgg tàmbalee bang bangi di indi tànki bukki nee fi nga war a jëkk a jaar ak mooy mooy fa isuhunna waar ko boo mënta waar wutil ku la waaral ne ko soxna si man de bi ma lay indi fii ci réew mi dama bëggoon rek jëfandikoo li ma alquran wax mooy seeni soxna nañ leen di jege ma bëggoon nga jege ma moo tax ma indi la ci réew mi ñu ànd di jaamu yàlla dama laa jëloon ci njëkk ak teraanga di ci ngor ba ñuy jóge ci réew ma xam nga ni bàyyi nañ fa ay noon de mana wala suñu noon yi ëllëg ñu dégg ci jalt jalt dama bëggoon nga delloo si sa xel te xam ni addina day amul solo as ndiggante rek la day jeex faxisoohunna soo waaree waar waaruwut suñu borom nee na léegi nag wax juróohunna fil madaja saa bu ngeen tëddatee ci lal bi na nga ko mere merelu bu la tegee loxo teggil teg te suuf bu waxee fukki baat ak juróom tontul ñaar ya bu dee jigéen ki am xel dana ni la waaw ku baax ki lii lu ko waral nga ne ko lii ma lay tere te bàyyi ko de moo tax waxoon naa la kër diw bu fa demaati waxoon naa la bul wàccati heure sàngam waxoon naa la nangam nangam te fekk yow yooyu ngay tere yëpp nag di lu lislaam tere tere na fekk muy lis lislaam tere mu ne soo ko gàddaayee xamal ko ni ko loolu moom moo tax ma boo ma tegee loxo ma teggi suñu borom ni bu fekkee ni loola fajul dara wadri booxu na léegi la ci sus mooy wutulub yar te bàcc bàccal ko ba xam duma ko comme légui dañu tollu jamono droit de l'homiste ak droit de fimiste yi né nañ ko door dem kaso kon bobu mom légui ñaar ngay sét sa digg ak sa borom wa ila nga bañ loolu bañ ba gay dem ba nga bayyi waye jigen ju am jom kenn du ag ak mom ci ñett yi mukk jigen ju am jom laax de nga war ko bu ragale yalla dana waru delusi wala boo koo xam ne nii yow ba nga koy jëlee kër ndeyam indi ko ci sa kër moom bu fekkee ne ragal na yàlla wóor na ko ni kumbaam si kenn sañu koo tas ku dul yow nga dem ba yàgg kumbaam suus nga xam ne yow dong yaa ko sañ a tas nga dem ba bëggatoo koo tas war naa seet boppam kumba si nga xam ne yow dong la lislaam may nga tas ko nga dem ba ne ko kumba si dootuma ko tas mom warna naa pousser question bo xamni waw lutax sama kumba si nga xamni mom dong mo am sañ-sañu tas ko te bu ko tasoon dañ ko ci bindal tuyaaba léegi lan moo tax nungootu ko tas bo pousser bop sa question bop boko ko laaje da ngeen trouver solution sun borom nak ni yow ku góor ki yow tamit waxtu woo xamanteni jaar nga ak mom fi mu deltu gannaaw lan ko don tere mu bayiko amatu lo ben droit amatu lo ben droit ci yii ma la wax amutuloo droit nekk fa di waar mbaa nga di ko gàddaay amutuloo ci droit mbaa sa loxo di jëm ci moom amutuloo ci benn droit gannaaw la nga doon saafaraw saafaru na fa saasa yow na nga dellu siwaat gannaaw moom ni nga meloon ak moom benn ngoog mu am ci beneen aaya ba tey suñu borom wax ni rabistu jàlla wa in xiftum siqaaqa baynahuma faxsoo akaman min ahlihi wa akaman min ahliha ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا باتي سوره النساء سن بروم ني كيب كين سي يين كو خامني سخنام داي بان بان ني مو جار سي سوليوشن يي امول سوليوشن مو ديم با ياكار ني كنا دارا دوسو في لودو ريك تخاليكو ناخ وار نكو واروت غاداي نكو ودلتول غناو دو مانوكو فاجول دارا سن بروم ني لغي بو ديمي با ياكار ني نك سيباراسيون ريك مو فا ديس suñu borom ne bala ngeen a wu des na beneen solution ñu ne ko solution bi lan la mu nañ seet ca bokki ndaw sax benn commission boo xam ne ay intellectuel lañu ñu seet ci bokki ku góor ki benn commission boo xam ni ay intellectuel la ñaari commission yooyu daje waxtaan ngir réparer sëy bi suñ borom ni ñaari commission yooyu saa bu ñu jegee te ànd ak yéene ju sell parce que yéene réparé man yàlla danaa ci dugal sama loxo sëy ba defaru in yurida kaana aliman xabira suñu borom nee na ñaari commission yi te mooy xakaman min ahlihi wa akaman min ñaari commission yi buñ dajee te defar tax leen a jóg man yàlla danaa ci dugal sama loxom defaru rabis to jàll waaye nag malheureusement li gën a bari ñun duñ ko defee noonu mooy ndaw si bu tàmbale indi bang bang borom kër bi commencé ko di punir au lieu que mu def li ko lislaam waxoon wala ñu commencé soowoo lu muy jëkk a def woo ndeyam téléphone man mënatuma fene damay ñëw ndeyam ne ko takkal say bagage ñëw bu ñëwee fii bu dof doflu maa ko gën a dof ngeen di ñaari dof say ba yam fa ngeen di ñaari dof rek say ba fa takkal say bagage di ñëw buy dof dof lu maa ko gën a dof ngeen di ñaari dof say ba yam fa moo tax suñu borom ni déedéet li waroon am mooy xabxasoo akaman min man wa akaman min ahliha na am délégation bu jóge ca bokki ku góor ka bii délégation jóge ca bokk ku jigéen ka ñu daje toog waxtaan ma dugal ci sama loxo man yàlla mbir ma jàpp ma dugal ci sama loxo mbir ma jàpp mhm. jëlee nañ ci Usaama ibnu Sayd mu ne yonent bi sallallahu ma taraktu baxdi fitnatan hiya addarru ala rijali min annisa mu ne moom Usaama dégg naa ci sama nopp sallallahu alayhi wa sallam man de maa ngi nii di dem barsaqul muhammadiya waaye bàyyiwuma sama gannaaw lu gën a mën a lor góor ñi jigéen ñi bàyyiwuma sama gannaaw loolu nag jamono bi ñuy dund moom xam nañ ko mooy nañ xool ci état yi addina bi yëpp luwaay yi xam ne dañ ko wate yëpp te muy loi yoo xam ni loi yu doy waar la yuy delloo euh, dundu gannaaw yuy delloom réew gannaaw yu ñàkk solo loi yooyu le kan moo ko imposé état yi bañ wotelu ko jigéen ñi loi yooyu jigéen ñee ko imposé état demal ci état yi àddina bi yëpp demal ci état yi addina bi yëpp femme intellectuelle yi muy femme féministe mi ñoom ñoo créé wala bu la neexee nga ni femme juriste yi ñoom ñooy créé seeni loi ñëw imposé ko état état du xool culture réew ma du xool aaday réew ma du xool ne réew ma di doxee yoonam te na fa lislaam tëddee waaye nu muy def yóbbu assemblée ñu wote mu ni bàyyiwuma ci addina lu gën a mën a lor góor ñi jigéen ñi addis la de Usaama ibnu Saydi moo ko nettali jëlee ko ci yonante bi sallallahu alayhi yooyu ci gën a élémentaire si wax am na yeneen yu gën a xóot yooyu waaye mënuma ci àgg waaye yooyu li ci gën a élémentaire buñ demee ba doom ju jigéen sañ a jiiñ viol te ndayam rek moo ko waral xam nga sànq ni bu dee lislaam bu sa soxna dee bang bangi suñ borom day wax ni bu leen def mukk séparation euh, séparation de corps bu dee ci droit yi ñu xam ci addina bi lu ñuy wax séparation de corps la ñuy wax l'islam ni déedéet parce na ma am jamono may def émission ci benn rajo benn xale bu jigéen bu ma woo ni ma day man damaa def loo xam ni xaw ma fu ma koy waxe ci addina mu ne waaw mu ni sama papa ak sama yaay dañoo feqali ko woon ñu dem tribunal léegi mu am lu ñuy dagg ci salaire sama papa di ko jox sama yaay pour man mi nga xam ne man lañ am ci diggante bi muy sama dund mu nu léegi nag li nga xamee ne séparé wu nañu man la sama yaay daan yabal may dem di jëli ji xaalis boobule mu ñu dem ba yàgg sama papa takk beneen jabar sama yaay nag ngir añaane ko sama baay wala bañ mu takk beneen jabar bi tax na man la jël comme outil ni ma léegi man la kompalool pour ñu tuumaal sama papa viol mu ne te man xam naa ne dara amu ci ba tëj nañ ci sama sax presque un an et quelque ma ne ko ah, bu mu ragalu toon day la yontu yàlla Muusa defoon te ko jigéen ji ñëwee di ko réclamer ni ko euh, damaa jàdd yoon ba am ci doom rey ko te Muusa ko gaawal jóg fii bala maa yàlla bala laa yàlla mbugal di ma mbugalaale bu ma ragalu toon lool te yàlla mujj di ko ci yedd ma ne ko su ma ragalu loolu damay couper téléphone bi waaye lool laa ragal waaye nag maa lay digal fo tolo ngay tuup nga dem di jëm sa papa lo man ci teral nang ko koy def ndax def nga bakkar bu reuy lo lepp luñu ko yobbe moy lima waxon sank rek ñaka jëfëndiko l'islam te waxna sank ni alquran da wax ni nit ki bo nekk ak mom ba tekkal ko mom dara wuur la jaral ci adina nga yaq deram même li tax ngeen séparé wu sax wo ko ko wërta wax ku bokk ci famille bi ku jege xëy na koo xam ko ko ñàkk a wax moom rek nga war a wax li tax nga ba nga yeewi ndaw si wala tax nga bàyyi ndaw si wala li tax ngeen tas ana sutura suñu borom nee na ci alquran hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna yéen góor ñi seen sutura jigéen ñee ko yor waaye yéen jigéen ñi seen sutura góor ñaa ko yor alquran la de yeen góor ñi bu ngeen bëggee sutura mu ne amuy dem leen ci jigéen ña jigéen ña yor seen sutura waaye yeen jigéen ñeen it bu ngeen bëggee sutura dem leen ci góor ña góor ña yor seen sutura waaw ñaar ñu yor kenn ku ne yor sutura morom sa ngeen ànd ba teqali ko ku ne di xawi sa sutura morom lu ko fi jar lu ko fi jar na ons billahi min ha na ons billahi min ha sun borom neena nak rabbi jalla bu fekkee ni ñaari commission yooyu daje nañ solution amut léegi lu fa sus mooy ko mu ni kon nag bu ngeen ko ba tayit ndaw si amul droit génn kër gi tant que amul trois mois wala bu fekkente ni kuy gis baax la mu gis baax ñett yoon mooy mu def li ñuy tuddee indispose ñett yoon soog a sañ a takki bagaasam dem waaye tant que bu dee kuy gis baax tànk gisul fóot ñett yoon wër sa génn kër gi bu fekkee ni daal màggat ba gisatul baax trois mois ferme na ko toog ci kër gi moom la alquran di juñu naan wala tuxrijuhunna min buyutihunna wala yaxrujna ila an yatina bi faaishatin mubayyina wa tilka ududala wa man yata ududala faqad salama nafsa borom ni képp kenn ci yéen ku wàcc soxnaam buñ demee ba solution amut ba teqale koo am nga fase ko bàyyi ko ci biir kër gi mu fiy jàppe yiddaam idda ji ñetti weer lay doon wala ñetti póot mu ni amuloo droit ni ko génnal kër gi te moom ndaw si ci bopp mit amul droit génne bu fekkee lislaam lay jëfee amul droit génn na toog ba trois euh, ñetti weer yi mat wala ñetti fóot yi mu ni xanaa ludul daal lu ludul yow ku góor ki bala nga ko sañ a génne mooy mu dem ba tàmbalee indi li ñu tuddee alfaxsa alfaaysa alfaaysa mooy mu dem ba tàmbali nag moom mu ngi jàpp idda iddaam matagul mu commencé de entrer ay faram yam doon wax rek xëy na ña ko doon wax naan ko tasal ma takkale ci bu dee bitim réew ndax alal jaag yooyu mu ne ah bu sañ ko ne a génnal sama kër nag ginnaaw yaa ngi entré ay far te yow sa idda matugul génnal sama kër loolu rek ay tax nga sañ ko suñ borom ne boo gisee ma ne leen bu ngeen leen mu solution amul ba passé am bu leen leen génne waaye ñoom it buñ génn mooy la tadri la alal la ay yudisu ba'da zalika amran muy ndax man yàlla ci diggante trois mois yooyu balaa jeex mën naa fee roofaat geneen mbëggeel ngeen daal di trouver entente dellu siwaat mën naa fee trouver mën naa fee dugalaat geneen mbëggeel mën nañu dem ba yàgg bu fekkee ku góor ki moo seetoon seet ni doyal naa banaa yàlla mën na def mu delloo si xelam mu ne ah am naa ma njaboot wala kii bañ ma koy jox dañ ma ko joxe woon ci anam boo xam ni anamus boobu ma dara ñu di ay gor jox ma ko par par là yooyu bu ko xelam yeddee ba mu del siwaat mu fay le ko te kenn du ma sa xam ne fase woon na ko lu dul xanaa seede yi bu dee ko jigéen ki moo ñaanoon baat bala trois mois yi mat moom it mën na réccu deltu gannaaw ne a ah, man fi mu nekk nii xës naa fi am njaboot su ma leen fi bàyyee tamit keneen ay ñëw wuufal ma ko te kooka xaw ma nu muy mel mën naa ñëw di kiituwaale sama njaboot par ci par là ba tax mu toog dellu siwaat suñu borom ni looloo tax لا الله لا yuhdisu ba'da salika amran muy waaye bu fekkee ne trois mois yi mat na bu fekkee kuy jël trois mois la wala boo ñetti póot yi mat na bu dee kiy jël póot te solution amul saa balax na ajala xunna famsikuhunna bi ma'ruf aw fariquhunna bi ma'ruf wa sudoo saway adlin minkum waqimu saada lillah ma nga sóoru tuta bu fekkee nag dem ngeen ba fi ma leen jaarul yëpp jaar ngeen fa solution amut idda ji na léegi leen rek moo mën a am bu boobaa fam si ko na bi maaruf nga téye ko te muñ rek li la ci naqar woon ginnaaw saafarawul nga téye te muñ rek mu ne ah mu ne wala boobu aw faariquhunna bi maaruf nga bàyyi ko ngir yàlla mu ne boo koy bàyyi nag wa asxidu saway adlin minkum na nga wut ñaar ñu maandu ñu seede ni diw mii sama soxna la woon bàyyi naa ko iddaam mat na jéggal naa ko na dem suñ borom nee na waqimoo saxaadata lillah yow muudu mbay caam mi benn waay woo ne kaay kaay témoin ma kaay seede ma sama soxna si jaar na maag moom fi ma lislaam wax lépp li ma doon faj fajuwut li ma doon saafara saafarawul kaay seede yaay sama seede wàcc naa ko yow Ablaay Xuti ñëwal yaay seede wàcc naa ko sun borom ni yow mudu tay mudu mbay jam bul wax mukk nan duma fekk fu ñi fasé de demal sédé ji wa qimu sahadata lillah demal nga sédé ji ngir yalla bu bu ëllëgé bu leneen xewé nga mëna taxaw ni man kat fekké won nako waccoon nako idam maton na bam wacc ko sun borom ni walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan alal muttaqina yeen goor ñi nak amel ngeen jigen ñi haqqi bu ngeen leen fasé bu ñuy dem ngeen jox leen ab yobbal mu ne ah lool ñi ragal yalla nak ñi ragal yalla koy def nga bàyyi sa soxna mu takki bagaasam nga luyeel ko oto dugalal ko ko ca paasal ko mu yóbbu ko su ne loolu moom xaqan alal mu muttaqin ñi ragal yàlla lépp ñoom dañ koy def ñi ragal yàlla ñoom dañ koy def malheureusement fii nii boo ko defoon wàcc sa soxna mu jëli bagaasam nga luyeel ko oto pour mu war a yóbbu bagaasam xam nga lu bokk wax waawow yàkkamti woon na ko wàcc ndax bañ daa sana wax salaamaaleykum sax mu luyee na taxi bu yóbbu bagage yi déedéet dafa def li ko lislaam wax rek dafa def li ko lislaam wax rek xaqan alal muttaqina xaqan alal muttaqina beneen bi ci des mooy naa koy faral di wax góor ñi nañ xam ni jigéen xamul yàlla na ma yàlla baal leneen ci jigéen ñi xamuñu yonant na ma yàlla baal xamuñu waliw xamuñu ko de yag ngeen a dégg ci conférence may wax ni ñett ñoy mujjé jaré ñu ci nitu yalla ñett ab taw bëkk neek soxna ab taw bëkk neek soxna ñett ñi ñoy mujjé jaré ñu ci nitu yalla barke bi mu def ci mom bu dé taw bi da maa ma a tok bu bàyyi dé may don may taw ba tax lam wara sakku ci barké ci bàyyi bu diko sakku mukk mukk mukk bu ko yalla dimbali bu dé bëkk neek bi fum mu toll jege gi mu jege sëriñ bi sëriñ bi léeg lekk ak albasriyaam da koy dikkal nga xam ne nii lii dal ñëpp a koy dal day ka fa ñëpp di ree ak ñëpp waaye téewut la fa nekk nga fa nekk moom it mu jàpp ni nit ki sëriñ bi wàlliw bi nitu kese rek la moom it ba tax barke du wàcc ci moom ndax da koy jàpp nitu kese ba war du ko naka noonu bu dee soxna si day wax ni waaye bu guddee maa ngi moomay bokk def yaramu neen moom loolu lay jàpp mooy bu amul saas du jariñu mukk ci nitu yàlla boobu xanaa xamul ni moom moom muy bokkal defar yaramu neen mook bu toogoon bu guddi moom nitu yàlla boobu mu jóg jàpp julli ñaar rakka tuyaaba ji ko ci yàlla di bindal moom la koy bindal ci bi mu wéeteeg yow ci lal bi def yaramu neen ngir sàmmanteeg xàq ji ko yàlla binde ak bindale ko yow ci sa bopp ba noppi yàlla da ko ciy bindal tu yi kuy julli kuy woor kuy natt asaka kuy dem màkka tuyaaba yooyu lañ ko ciy bindal kon nag ndiir soosu ngeen di bokk def yaram mu nen ci lal bi bum la tee nga xam ni kii war naa cee mën a am yàlla nga wut ca yàlla nga wut ca yàlla waaye jigéen moom xamut loolu naa ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa waa këram dañoo xëy taxawal ko buntu néegam ñu ko nag ah xam nga naa mu ne suñ morom yi ci dëkk bi lañ am ci lañ bëgg dañoo bëgg di sol jasneer comme ñëpp doyal nañ ci wax yi bëgg di sol gañi la comme ñëpp doyal nañ ci xar mi ak xartum yi yonent bi laa wax de sallallahu alayhi wasallam ndax lan approche biñ am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu sañe poñe yonent yàlla bi laa wax de naan ko doyal nañ ci wax si nag ay jasneer lañ bëgg sallallahu alayhi wa sallam toog jigéen ñi wër ko kenn ku ne di wax ay doléance am mais surtout na Omar ni jaleñ mu Omar gis nga jigéen ñi ñoo ma pinir fii de ñoo ma taxawal nii de ah luñ la fi taxawale nee nañ day ñoom son sonn nañ ci wax yeeg mi ay jasneer lañ bëgg comme Omar doomam a nga ca mu Seydina Hafsa Omar yóotu Hafsa rek bëgg a dóorum talaata yonent yalla bi ngay taxawal ndax ay bousin yooyu kaas sallallahu alayhi wasallam sallam loxam Omar bama lay booleeg sa wa kër ñi kat li taxut dama bëgg nga defeere ñu wax leen ñu muñ waaye bëgg génnal sama kër ah sëñ Abubakar Saddiq ñëw mu ne Abubakar gis nga de soxna yi day ñoom ak fi nee nañ nañ ci xartum yeeg wax si léegi daal li bëgg mooy ay jas neer sallallahu alayhi wasallam sayidina aboubacar sadiq moom it doomam nga fa say muy sayidatuna aïcha mu nu yóot bëgg a talaata mu téye loxo ah lii tax ma lay booleeg saa waa yi man ma bëgg nga defar génnal sama kër génnal sama kër ah yàlla doog a yabal jibril alayhi salaatu wasalaam ni ko nag demal waxal ma waa kër yonent bi nag liñ def ëpp na nag alquran ñëw ni ya ayyuha nabiyu qul aswaajika in kuntunna turidna al ayaata dunya wa zinataha fa taalayna ah yéen waa kër yonent bi léegi da ngeen a jëndee addina àllaaxira seen borom kër bi di nitu yàlla ma yónni ko loxoom jutul gannaawam ngeen mën a am ci moom àjjana wala yéen ngeen wut ci moom àjjana xanaa di dabu addina kese léegi fa taalayna addinaa ngoog jël leen benn ngeen ànd ak addina te dem ma indi fi yeneeni soxna yu leen gën a taaru gën leen a nekk ay jongama gën leen a nekk ay xale te yéen ngeen jël adina te dem wa ila ngeen nangoo toog muñ am alaxira yow ma xam yóbbu leen àjjana ah, bi aaya bi wàccee ba jeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni sayyidatuna Aisha loo xam mu ni hii tànn naa yàlla ko yonent man alaxira ma gënal àddina ñeneen jigéen ñi des ñëpp daal di wax loolu ñoom it jàmm daal di am netli woon naa ko ci jumaa ji kenn ci kilifa yi moom ko nettali te doylo naa xam mu ni sëñ Touba radiyallahu taala anhu dafa am benn bis mu ñu andil ko benn benn benn benn benn benn complète boo xam ne nii euh, bu weex la li ñuy tuddee ay tiise bi nu mu tuddee ci waay mooy tiise yu ratax yu xew yooyu ñu ko benn benn tiise bu weex maylus mu ngoog benn maylus bu weex lañ ko andil mu ni gees kenn ci bëkk néegi jox ko ko ni ko joxal ma ko soxna diw mu dem jox ko kooka kalasa ñu indil ko benn maylus bu ñuul mu ne gees ci bëkk néegi ni joxal ma ko soxna diw ñu jox ko kooka kookee ñu ko jox daal di ñëw ba tolloog feneer feneer sëñ Tuuba daal ni fa xëpp maylus ba daal ni ko bu mel ni booba laa bëgg bu weex bu mel ni booba laa bëgg xanaa kon nga xam ne jigéen xamul yàlla xamul wàlliw lum xam lim bëgg lim bëgg rek la xam Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu nekk amirul muminin nit ñëw na ci moom di ko kalaame ak soxnaam bi mu duggee ci kër gi di kalaame Omar ak soxnaam fekk Omar soxnaam taxawal ko moom soxnaam taxawal Omar di joxalante moom ay kàddu mu rocc ko ndànk bëgga a deltu gannaaw Omar ni ko kaay kaay mu ñëw lu taxoon a jóg mu ni ko dara mu ni ko waaye wax ma rek muy wokk ndom mu ne ko ah man kay sama soxnaa ma def lu ma naqari ma ñëw di la ko boole si waaye man kay li ma gis far naa noppi mu ne ko waaw kii boo gisee moom muñal ko mu naa ah, dañ a war a ndax yére yi bu setee moom la njaboot yi lekkee moom la nangam bu amee moom la di lim li ñu war a def ci kër gi yëpp mu ni moom mii rek la kon nag jaadu nañu muñal ko lii loolu it nettali nañ ma ko ci diggante sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu nee nañ maam Cheikh Ibrahima Fall mas na am lu ko naqari ci waa këram ci jigéen ña mu ñu ko nettali si sëñ Touba far yam ci lii ma doon nettali léegi may lus boobu nga xam ni dañ ko joxoon kee bu weex kee ñuul borom bu ñuul bi gelo ci ko di kaas ni lañ ko jox bu weex mom maam ci arafat fekk mi ngi boof momit di bëgg wax sëñ Touba soxla sum sa ko tax joge kërëm ci ay soxnaam neñu bam gisé soxna sa puus may lus ba mu ñu pëndax ca fenêtre ba mu ne ko bu weex la bëgg ni boba maam ci arafat rocc ko ndank bëgg a kërëm këram sëñ Touba ni ko lu doon say tank mu ne ah, mu koy mbacké mu ne gis nga ko ni ñom ñi leen yalla bindé xamuñu yalla xamuñu xamuñu waliw kon nak masla ñoom dëgg dëgg waxtaan wi jeexut dañoo yeex a tàmbali waaye te yàlla baal coono bi daal ak li ci xew yëpp xam ngeen nekkuma à l'aise pour waxtaan wi euh, beneen bi ci desit mel na ni am na ay gan yu fi nekk di ma xaar bu ko defee kon daal suñ muudu dañuy yamale foofu waxtaane beneen yoon ah xëy na beneen yoon waroon na maa wax ci sax xew-xew bii nga xam ne maa xew muy Hmm, eh, epidemi bi nga xamne mo daj adina bi li ñi tudde tahun ci arab eh, ak mu ko yonent bi gisee ak alquran num gisee yoyu xeyna na peut-être dimanche bi di ñew ñu waxtaan ci ci mbirum epidemi yi nga xamne moy faral di am ak eh, nu ko l'islam gisee <clears throat> xeyna na bu ñu waxtaan ci dimanche ñu ko yalla fekk lo en tout cas waxtaan yi dal dag dag yi sank ak ki bi amone problème taxna na en l'aise dal deug deug ni mako warna ak yee waaye lu ci <clears throat> jub ngeen xam ne suñu borom la lu ci dëng ngeen xam ne man mi ko doon wax moom maa mata di rek doon ko wax ko defee ñu ngi leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di gërëm ñëpp di leen sant di nuyu mboolem ñi nekk ci diaspora bi sëriñ Ibrahima Ndiaye Khalil nuyu nañ la xaw nañ laa gëj di dégg sëñ Moudi Ndiaye Baye Fall moom defe naa mi ngi Sénégal wut dellu ak ku ci mel ni sëriñ euh, Amadou Coulibaly moom tamit kenn ci wële réew daara ji di suñu xarit moom ak soxnaam soxna Abi sekk Euh, maa ngi nuyu Xadijatu numéro 2 Xadijatu numéro 2 bu ma ko xam na boppam euh, bañ ko tudd aw turam waaye kon nag xanaa sañ na wax Xadijatu numéro maa ngi nuyu tamit maam Boussa maam Boussa Niass gëj nañ ko dégg euh, ku ci mel ni maam Boussa Guèye soxna Daba jigéen ba foofu ca Amérique ñoom nañ leen waa Afrique du Sud ñoom tamit nuyu nañ leen ku ci mel ni Angleterre ñoom Cheikh Fall ñoom Makhtar Makhtar Sall ñoom. nuyu nañ ñëpp daal gërëm diaspora bi yëpp ndokkeel leen ñaanal leen fukki ñaan di wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimmu salihat wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Thank you.